كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وشات كلي إلى ذي الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxaabatihi al ghurril mayamin wa ala xayri xadimihi dil hablil matin wa ala man iqtafa atharhum ila yawmi ddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi ñu santee sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa tey jaajëfal a Cheikhul Xadim leen di nduyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Sëriñ Tuubaa si Muhammadul Muntaqa sun borom yokk ko fan ak wér ba mu àggale mboolem ay naalam ak yéeneem di ko ñaanal njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di ko ñaanal suñu bopp nun tara bi Sëriñ Tuubaa yëpp ñëwaat fii ci seen télévision Lamp Fall ngir seen émission bi ngeen miin muy émission xam sa diine yam ajuma bu nekk ci waxtu wi ngeen baaxoo ànd ak seen mbokk Sëriñ Mor Mbàkke laaji Fallu Seen nekkal nu ci caméra bi e, ñuy baalu xaq ñëpp di ko baal ñëpp e, ñu fas yéene waxtaan tey nag tomb boo xam ne bu yitteel la bu am solo la lool muy ashukru wa fawaiduhu muy cant ak njariñam cant nekk lu am solo lool bokkit ci jaamu yàlla yi nga xam ne su eh, lislaam da ko tàmm lool bari lool it tiyaaba ak i ngeneel ndax sun boom subhaanahu wa taala day buur bu boo xam ne li mu xéewalal ci ay bindeefam mëneesu mëneesu ko xam wa in ta'uddu ni'matallaahi laa tuhsuuhaa su ngeen doon jéema takk wala ngeen di jéem a lim xéewal yàlla ci yéen ko man loolu dañ ñëw ci kanam loolu nag dafa laaj cant xéewal yàlla ci yow dafa laaj cant wasu ma da defal xéewal nga sant ko mu dolli la wala mu defal la tiyaaba ci cant googee loolu nag yàlla rek mooy ki am jooju googu kàttan ak googu mbaax cant nag <coughs> dafa seetli ko ñetti xaaj muy ashukru bil qalbi muy cant goo xam ne xol moo koy def wa shukru bil lisaan ak cant goo xam ne ci làmmiñ lay bàyyi ko wa shukru bil jawaarix ak cant goo xam ne ci cër yi lay bàyyi ko cantuk xol mooy nga am pas-pas ak yëg-yëg ne xéewal gi la tax di sant ci yàlla rek la bàyyi ko kenn mënta wërsëgal ku dul yàlla kenn mënta xéewal ku dul yàlla kon fu mu mën a jaar dafaa jaar waaye ci yàlla rek la bàyyi ko gëm-gëm boobu ak pas-pas boobu mooy cantuk xol yéeg na daal lii ndimbal suñu borom la ci ci moom la bàyyi ko bu dee cantu làmmiñ mooy wax gi nga wax ci saam yi mu di ci yàlla alhamdulillah alhamdu wa ak yu mel Eh, walla ci wolof maa ngi sant yàlla noo ko mën a waxee nga day tegtal ne suñu boon defal na la yaa ngi koy sant ci saw làmmiñ loolu mooy cantuk làmmiñ mu dee cantuk cër nag cantuk cër yi mooy xéewal gi la tax di sant nga jëfandikoo ko cig jaamu yàlla buñ ko jëfandikoo cig moy Eh, wala am pax caaxaan waaye nga jëfandikoo ko ci lu neex yàlla mooy cantuk cër yi loolu Sëñ Tuubaa di wax ne xaqiqatu shukri la daaman alima shuhuduhu min dil jalaalin min dil jalaalin niama wa amulin biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yarda waru ko naa justabaan bu mujj boobu muy cantu xol nag nee na ponk la ci cant boo xam ne bu fa nekkul rek cant amu fa cantu xol li fekk amu ci rek dont yaa ngi tagg yàlla ci saw làmmiñ di ko santit waaye xol bi santut nee kon nee na santoo ndax ab ponk la ci cant waaye dafa dafa daf ca bokk nag ci ci cantu xol da caa bokk at tawaadoo muy wàcce sa bopp eh, waaye nag rëy rëy ci kaw ku rëy maanaam bu am alal tax nga xeebe ku ko amut wala ba danga am danga am situation bu baax bu kawee bëgg xeeb borom situation bu suufe ci misaal da ngay directeur de société di liggéey ci ci bureau bi bu ñu climatisé bu ndax nga xeeb nag borom borom saytu mbaam la liggéey li nga nekk liggéey la lam nekk liggéey kon bul ëppi ni dara ja mbaa alal mbaa benn genn anam ba tax nga gise ci sa bopp kon da ngay sa bopp ba yem ak eh, ba tey bokk na ci tawaadon nag mooy bu dee nit ku réy ni nga réylu ci kaw a ki am alal di réy réylu nga won ko ne gisuma li nga am rek réy réylu mooy loolu takk bu doon alal xan yi del kibri xam ne ku ku rëy la gis boppam ngir alalam nga wan ko ne gisuma li nga am rek mooy yemali ko ñëpp doo ko teg fenn loolu mooy rëy réylu ci kanamu borom alal bu réy moom la wax ne min xat tawaadu wa minhu fadri takabburun alal ghani dil kibri waaye dañ ci limaale ci eh, dañuy limaale ci tawaadon boobu eh, wala bokk ci cantu xol ixlaas dafa bokk cantu xol ixlaas ixlaas lillah te mooy jëf ji ngay jëf ne yàlla dong tax ne yàlla dong tax eh, loolu nag nee na ixlaas nag am na ñetti daraja am na ixlaas gu kawe lool am na ixlaas gu digg doomu am na ixlaas gu suufe sellal gu kawe lool nga xam ne mooy bi gën a kawe ci sell xeeti sellal yi ak sellal boo xam ne dafa digg doomu ak sel sellal gi nga xam ne mooy gi gën a suufe ci xeeti sellal yépp loolu la Sëñ Tuubaa di wax ne wa udda min jumlatiha ixlaasu amalina liman lahu al ashxaasu lahu la dal xawmi thalaatu darajaat ulya wa wusta summa dunya bi thabaat su dee cant gi nga xam ne mooy gi gën a kawe ci cant yi ci xeeti sellal yi bokk mooy nit koo xam ne jaamu gi muy jaamu yàlla bëgg àjjana taxut ragal sawara taxut da nga su ma yeyoon a jaamu rek nga xam ne su fekkoon da su fekkoon bindu ajjana bindu sawara it du tee danga ko jaamu ngir rek yëg ne nam toll ak nam màggeeg nam eh, dayoom nam toll ko yeyoo jaamul nga di ko jaamu ngir loola waaye ragal sawara taxut bëgg ajjana taxut ndax bu fekkoon ajjana mu sawara amut teewul da danga ko jaamu kii am boobu taxawaay pas-pas boobu mooy sellal bi gën a kawe ci xeeti wala sellal gi gën a kawe ci mboolem xeeti sellal yëpp su dee bi dugg doomu bu njëkk bee mooy su fekkoon yàlla digle wut ko it du tee danga ko jaamu ngir ngir xam ne yaayoon a jaamu kan donte yàlla digliwu ko woon da nga yaayoon a yëg ne nga jaamu ngir loola bu dee bi diggu doom bi nag mooy kiy jaamu yàlla ngir na yàlla da koo digle xam nga boo ko tekkee kii moom digle gi ko yàlla digle tax mu di ko def waaye su ko yàlla digli wutoon du ko def kenn nag moom su ko yàlla digli wutoon du tee dana ko def ngir rek ne yëg ne yàlla nim teddeeg nim màggeeg ab dayom fi mu àgg yaa yoon a jaam ngir ngir di ko jaam ngir loola donte digle ko donte sawara amut donte ajjana amut kon ki nga xam da koy jaamu ngir na yàlla ko digle loolu mooy sellal gi digg doomu su dee sellal gi gën a suufe nag moo ci gën a suufe donte nag baax na waaye mooy bi ci gën a suufe mooy kii jaamu ngir bëgg àjjana rek ak ragal sawara yàlla dana ku ma jaamu tàbbi àjjana ku ma jaamu sawara nga di ko jaamu ngir mucc ca sawara tàbbi àjjana moom mooy bi gën a suufe ca mboolem xeeti sellal yépp loolu la Sëñ di wax ne ulyaahu an taabudahu ijlaala wustaahu an ta'budahu imtithaala dunyaahu an ta'budahu hubba thawab ka jannati naimi aw dafi al iqab kon ñetti xaaj yooyu moom la cant séddili ko cant nag bari lool ay njariñ ba ci njëkk mooy cant dafa bokk ci melo yàlla yi subhaanahu wa ta'ala eh, te muy melokaan wu mu bëgg lool te gërëm ko te di ko saxal ci ay jaamam yàlla ab santkat la sant ci melo la bokk sunu Boroom nee na inna allaha ghafurun shakur te suuratu shura yàlla ab jégg laa ko ndawaay ab santkat la kon cant melo yàlla la daf bokk ci ay turam ashakur mooy santkat bi kon lu yàlla melokaanoo dafay tegtal kon màgg gu wow melokaan ak dara jaam ak ngëneelam ba ko ñaareel ci njariñ ci cant njariñi cant mooy cant dana sabab ak mucc ci mbugalum yàlla jalla sun ba mu ko tar mbugal la ku metti mbugal la waaye nag jaa waaye nag cant dana tax sunu ba musal la ci mbugalam sunu bam nee na maa yafal allahu bi adaabikumoo in shakartum wa amantum alima yàlla du leen mbugal mukk su fekkee sant ngeen gannaaw bi ngeen gëmee ba noppi gannaaw bi ngeen gëmee su fekkee sant ngeen yàlla du leen mbugal mukk ndax yàlla kat shaakir la alim la mooy sant kat la te ko xam lépp la Eh, sot nisa ñetteel bi ci njariñi cant moo ne cant sabab la suy taxam yol bu màgg fa yàlla subhanahu wa ndax su doon ci ali imran wa sa najzi shakirin santkat yi naa leen fay pay gu kawe gu màgg gu rëy ñeenteel bi ci njariñi cant mooy cant dafa bokk ci wuyu woote bi yàlla subhanahu wa taala ak topp ndigalam ndax yàlla ci boppam moo digal ay jaam ñu di ko sant moo digle nañ may sant washkuru lii wala takfuruun nee na santaleen ma te bañ maa weddi kon cant ndigalal yàlla subhanahu wa taala ci ay jaam kon def ko kon topp ndigalal yàlla ak wuyu ab wooteem ba ko juróomeel mooy cant dana sabab sun boom sàmmal la sa xéewal la nga am ci xéewal ci ci ci ci ngeen ay ci alal ak lu mën a doon yàlla sàmmal la ko te di la ko dollil da koy sàmm di ko dolli muy gën di bari waaye itam def ca barke di yokk barke ba waxtu nekk waaye itam di di di rafetal njariñam wa it ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartumoo in azabi la shadid sun boom nee na su ngeen santee day ma dolli leen waaye su ngeen weddee mooy bañ a cant sama mbugal lu metti la kon tëkkoon nit ñàkk ko sant kon de bu fekkee ne bu ngeen santul sama mbugal lu metti la kon day tegtal ne kon ku ku santut mën nga caa dajee mbugal mu yàlla subhanahu wa taala ca loola surtout Ibrahim ba ko juróom benneel ci njariñi cant mooy màndarga la yu bokk ci màndargay waroom xel yi ñi sumboon di wax ne ñu am xel lañu santkat yi dañ caa boole inna fi dalika la ayatin li kulli shakur nee na day lépp ay kimtaan la ñeel képp ko di muñaa te di santaakoon te ay ayaat nag ko koy settantal di xam la ca làmboo mooy boromum xel boromum xel juróom-ñaareel bi ci njariñi cant mooy kiy sant boppam boppam rek lay sant ndax yàlla cant gi du ko yokk dara du ko jariñ dara kon ki sant cant gi moom lay moom rek lay jariñ tey da ko yëkkatil daraja da ko yëkkatil daraja wala su ma di wax ne wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna llaha ghaniyyun karim wa man sant day boppam rek la santal waaye ko weddi nag bañ a sant yàlla mu ñàkk a cant du ko wàññi dara waaye lu cay bàyyi ko ci lor ci yow lay desiwaat ndax yàlla ghaniy la koo xam ne doylu na walis lépp lu mën a doon karim la it Eh, do doon doon na ko yaayoo cant ba noppi doon te santeesu ko ba ko juróom-ñetteel mooy sant nit ñi dañ koy jàppe ne sant yàlla sant nit sant yàlla la yàlla du jox benn jaam xéewal mais amee yàlla lu mu lay jox ci nit la koy jaarale xéewal gu mu lay jox ci nit la koy jaarale kon boo fekkee da nga ne da tëb sant yàlla te santoo kam jàlli xéwal ga ci moom suñu bo neen du nangoo ko jant kon boo koy sant da ngay santaale da ngay njëkk sant kam jàlli xéwal gi ci moom ba noppi sant yàlla suñu boom waaye su fekkee da nga tëb ka la ga jaat ci sant yàlla suñu bo neen goo ko jant du ko nangu loolu la yontu saa sama waxoon ne laa yashkurillaaha man laa yashkuri ku santu nit ñi soo sante yàlla yi santoo te sun boom it am na fu mu tudd nit ne nanga ko sant anishkur lii wali walidayk ilayal masir su ma ne nang ma sant waaye na sant sa ñaari waajur sa ñaari sa nit lañ sa ñaari waajur nit lañu kon kay wax ne nit dee su ko sant loolu njuumte lu lu rëy la axa kay nit dañ koy sant sant ko sant yàlla na sunu ba neen na ma sant waaye na nga santit sa ñaari waajur ndax ci ñoom la la yàlla jaarale eh, eh, seen njekk ca yet nekk njekk lu kawe di la dundal di la woddu di la dëkkal di la toppatoo ba nga ne léng kon yeewee nañ cant moo tax suñu boom sant la nga sant leen digal la nga sant leen gannaaw boo ko santee moom yàlla ba noppi anishkur lii wali walidayka ilayya al masir ba ko juróom-ñeenteel mooy cant ku ko def dam mu ngi mel ni ko topp tànki yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di dox ci seeni jéego waaye waaye itam topp tànki santkat yi fi jiitoon yëpp te sunu deen tagg ci alquran muy anbiyaaw yeeg saalixoona yeeg ñu baax ñëpp rek ndax ñu ñëpp ay santkat lañ woon waaye it mu nekk ndi mbir moo xam ne yàlla da ko gërëm lool moom cant gërëm it ña koy def dafa gërëm cant gërëm santkat yi ndax nee na wa in tashkuru yardahu lakum su ngeen santee day seen cant googu yàlla gërëm ko lool waa in tashkuru yardahu lakum te ngërëmal yàlla lu kawe kawe kawe la te ngërëmam dafa làmbu ci ak cantam ba fukkeel baag benn ci njariñi cant mooy cant dafa nekk luy luy luy gàllankoor seytaane di ko gàcceel di damm ay pexem di ko di di di di ay pexem te seytaane ko xiir la lool ci wala bati nit ñi ba teelee na sant ndax ba kera ba ko sun moom toro xale génne ko mu jàkkaalu yàlla di di di xaatimanteeg moom dafa wax ne fa bima aghwaytani la aqudu lahum siraataka almustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an shamaa'ilihim wa tajid aktharahum néewut aabidiina de waaye shaakiriin la wax ci sababu bewloo gi nga ma bewloo ak daq gi nga ma dàq toroxal gi ma toroxal sa jaam ñi nga xam ne sa sa nit ñi nga xam ne ñoo tax nga toroxal ma muy doomu aadama naa leen gàllankoor naa dem ba ci sa digg yoon bu ñuy wax siraatal mustaqiim ma feneen ko ci digg ba ku ñëw ma fexe ba nga jàdd ci ñal li naa leen jaar ci seen kanam seen gannaaw seen ndeyjoor seen càmmoñ bali li ëpp ci ñoom néew duñ la jaamu de waaye duñ la sant la wax duñ la sant kon jaam ñi buñ santut yàqule te seytaan yàqul ak jaam la bëgg kon nag bu fekkee bàyyi na fa jaamu ne sant rek dama fexe duñ la sant kon day tegtal dayub cant ak màggum màgg ak wàccuwaay bu kay bu am ci yàlla subhanahu wa taala mona moo ne daa feex ba sa jaam ñi duñ la sant ndax buñ santu yàlla yàqule loolu la wax ci sotu la araf ba ko fukkeel ak ñaar ci eh, njariñ cant mooy an nisful axar min al iman mooy benn xaaju gëm yàlla liimaan ñaari xaaj la eh, benn xaaj bi mooy cant beneen xaaj bi mooy mooy mooy muñ xam ci waxtaan muñ lañ jóge ñëw ci cant kon day ñaar yu lëkkaloo moo tax bi ñu waxtaanee muñ ba noppi eh, buñ ci jaxle émission yi ñëw ci cant nga xam ne mooy benn xaajam benn xaaju limaan ndax ne al imaan nisfaani nisfu sabrin waa nisfu shukur kon gëm yàlla ñaari xaaj la muy xaajub muñ ak xaajub cant fukkeel baag ñett ci njariñi cant mooy cant tegtal la buy tegtale matuk xel di tegtale selluk xalaat di tegtal itam seetuk seetuk seetuk xol seetuk bakkan ndax ko xam dayob yàlla muy joxe xéewal jalla wa ala seetantal yéemeeg ay tiraangaam ak bareem màggaayu ak mayam kon da day day yëg ne kon la gën a yey may muy muy muy muy muy kebetu ak cant waxtu nekk ci làmmiñam gannaaw bu ko fasee ci xolam waaye mu yëkkate aw ca kaw subhanahu wa taala ci ci ci ci di ko tagg amoon na ci banu Israil ñette gaay ñette gaay kenn ki ab luu la dafa muuma kenn ki dafa silmaxa kenn ki dafa lafañ ñoom ñépp na bokk di ñaan yàlla subhanahu wa taala ci mu teggil leen wéradi googu leen gaar te wërsëgal leen alal kenn ku nekk gumba gaa ngi ñaan yàlla teggal ko silmaxa gi te defal ko alal lafiñ bi di ñaan suñu jox ko ci wéral la ko gaar te may ko alal muuma bi di ñaan lolo ba suñu boom nangu seen ñaan ga ndax yebal menn malaaka malaaka mi ñëw ci euh, ñëw ci ñëw ñëw ñëw ci asafala dama jum ne mu waaye gaana la kenn gaana mooy kii dafa yore ngaana kii silmaxa kii la fañ ñuy ñaan yàlla teggi leen la leen gaar te wërsëg la alal malaaka mi ñëw ci ki ci ki gaana woon jël loxoom teg ko ci kaw yaramam rekk yaram yi daal di soppi ku mu am teen bu rafet yor melokaan wu rafet a rafet rafet ma jox ak naaga gu ji gu jigéen naaga googu jur giléem yi juranti juranti ba mu am gétt gu mag a mag a mag ci ay gëléem mu bu ñu nekkoon xan yi nekk ko ko woomal malaaka mi dem ci lafañ bi teg loxoom ci kaw yaramam yàlla daldi koy saafara mu dal ni ñokket dox tànkam mu jox ko nag wu jigéen wu ëmb mu jur nag ya dolli ko di jurante di jurante ba mu jam gétt gu mag a mag a mag cay nag malaaka mi ñëw ci ki silmaxa teg loxoom ci bët yi yàlla saafara mu dal ni xefeet xol malaaka jox ko ab gàtt ba ànd ak doomam garte dolliku di jurante jurante ba mujj am gétt gu mag a mag a mag ci ak jur bañ ca tegee ab diir nag ay at malaaka ma diir si ci ñoom ci ci ci ci jëmmi nit ngir nattu leen ba xam dañuy santam dañuy weddi ci xéwal gi leen yàlla defal mu ñëw mel ni faqiir buy sàkku ndi buy sàkku ndimbal dafa ñu ci melokaan faqiir bu ñàkk di sàkk ndimbal benn demee ci ki gaana woon eh, joxu ko dara mu dem ci ki lafañoon joxu ko dara ñu ne ko alal ji kat ci sunu sunuy bàyyi lañ ko doon ne duñ ko yàqte bañ gàntale malaaka ma ca lool nag ca lañ daa delluwaat ca nañ meloon gaana ga delluwaat ci ngaanaam ñàkk alal ja lafañ ba dellu ceeg lafañam ñàkk alal ja malaaka mi ñëw ci ki silmaxa woon sàkku ci moom ab sarax mu yaatal ko dalal ko tatagal ko ne ko xad kuntu ama faradallahu basari faqud ma shita wa da ma shita man ko dama silma yàlla defal ma xéewal saafara ma jox ma it alal ji kon alal ji xoolal loo ci bëgg mën nga jël loo ci bëgg mën ngaa jël malaaka ne ko xad radiyallahu ank yàlla gërëm na la xissa bi ñëw na ci xadis boo xam ne bu wér wér la boo xam ne muttafaqun alayhi kon muy muy wér loo xam ne day xiir xaal waaye lu wér wér lu am la kon kii nga xam ne silma silmaxa woon na kon dafa mel ni dañoo nekkoon ci examen waaye moom rekk moo ci moo ci jàll moo jàll ci examen bi moo ci admis mu sant yàlla dafa sant yàlla sarxe ci li ko yàlla wësëgal yàlla dolli ko xéewal barkeelal ko alal ja gannaaw boo xamee na nag kalafañoo nag ka gaana woon nay nañ ci seen alal daal ñàkk santuñu yàlla ndax yàlla rékkiwaat xéewal ga ci ñoom ndax xewal boo ko santu sun boom da koy rékkiwaat ñàkk sant day rekki xéewal ñu ngi natt benn waay boo xam ne yàlla da ko nattoon nattu bu metti da ko natta nattoo benn dafa silmaxa ñaar ñaar loxo yëpp dañoo dagg ñett ñaari tànk yëpp dañoo dagg amuti tànk amuti loxo silmaxa teg ca benn waay ñëw di ci man këram di ko seet si bis bi duggee mi ngi ko fekk muy sant yàlla ci ci xéwal gi mu ko xéwalal di wax ne alhamdu alhamdulilah li si afaani mi ma mi mabtala bihi xayri wa faddalina ala kathirin mimman xalaqa tafdila maa ngi sant ma defal jàmm ci loo xam ne nattoon ci ñeneen musal ma ci man defal ma ngëneel loo xam ne tiime naa ko ñu bari ci jàmm ñi waa ji nag yéemu moom mi ñëw fekk kii dafa silmaxa amut tànk amut loxo ba noppi di sant yàlla man xéewal gi ma yàlla defal ca la ko laaj nag ne ko waa lu tax nga de maanaam la ci lan ngay sant maanaam ci lan rek ngay sant yàlla ak li ak ni nga mel mooy tànk mooy loxo amuy bët di sant yàlla ci lan ngay sant yàlla yaa haada ashkurullaha am wahaba li lisaanan daakira wa qalban xaashi'a wa badanan ala balaa'i saabira ba may sant yàlla bi ma mayee làmmiñ bu mën a tudd yàlla ak xal xol bu mën a ëmb ragal yàlla ak yaram bu mën a muñ balaa bu ci yàlla teg nga gise kon loolu cant gu kawe la nga gis ki li ko yàlla teg lépp nga xool la muy sante moom yàlla may na ma lam yu mën a tudd yàlla xol bu mën a ëmb ragal yàlla ak yaram mën a muñ balaa bu ci yàlla teg nga gis kon nit ñi kon seen daraja tolluwut bu doon am ndaw ko ndaana mu waxtu nekk ci jàmbat lay dëkk wala sax mu far wedd yàlla ne yàlla kat baaxu ndax li ma teg nangam nangam parce kii li ko yàlla teg waaye teewul ma ngay sant moom ba tey dañu nettali waaye boo xam ne dafa demoon ci kenn ci boroom xam-xam yi ulama yi di ko jàmbat ak ñàkkam boroom xam-xam mi ne ko a yasurruka annaka axras wala ka asatu ala fi dirham ndax doon na la neex nga lu te yàlla jox la fukki dërëm ci alal waa ji ne ko déedéet mu ne ko ayasurruka annaka a'ma walaka ashru alaafi dirham ndax doon na la neex nga silmaxa te yàlla jox la fukki junni waa ji ne ko laa déedéet boroom xam-xam ne ko ay ayasurruka annaka majnuun walaka ashru alaafi dirham ndax doon na doon na la neex yàlla teg la ak ndof nga dof ba noppi yàlla jox la nag fukki junni mu ne ko déedéet borom xam-xam ne ko a yasruruka annaka maqtu'ul yadayni war rijlayni wala ka isruuna alaafi dirham ndax doonal neex yàlla dagg sa ñaar loxo yëpp ak sa ñaar tànk yëpp ba noo jox la ñaar fukki ñaar fukki junni waa ñaar fukki junni alal ju bari la woon waa ji ne ko déedéet borom xam-xam ne ko amma tastaxyi an tashkuwa mawlaaka wa lahu indaka Eh, neama bi xamsina bi xamsina alf mu ne ko tee ngaa rus te nga am gàcca ndax rusoo di jàmbat sa boroom mi la defal xéewal yi yépp jox na la bët yuy gis jox na la xel mu mucc jox la tànk yu yu yu dara dëlul dox dox yu dara dëlul amu benn gàllankoor moo tee sant yàlla ci ci ci xéewal yooyu góor geen door a na xam na xéewalu yàlla ci moom ci la mujj di sant yàlla di gërëm situation jàmbatatul kenn itam lenn lan mooy sant ashukru huwa almujazaatu ala al ixsaan wa thanaau jamilu ala man yuqaddimu wal ixsaan cant may fayante njëkk rekk wala nga ne mooy delloo njukkal cant mooy delloo njukkal ak tagg woo rafet ci ki defal xeewal mbaamu mu rafetal jëme ci jëme ci yow nga delloo ko njukkal delloo njukkal rek mooy cant ambiya yi ay santkat lañ woon dafa nekkoon jikko ju taqoo ak ak ak anbiyaullahi salawatullahi alayhim ajmain ñu joxe ci misaal sayiduna ibrahima alayhi salaam suñu boom nee na inna ibrahima kaana ummatan xaanitan lillahi xanifa walam yaku min al mushrikin shaakan li anhu ijtabaahu hadahu ila siraati mustaqim suñu boom ne ibrahima day aw xeet la woon aw xeet la wu jaamu yàlla te doyloo ko wa ak jaamom waaye musa bokk ci ñiy bokkaale waaye nag saakari li addu am yii la ca teg ko daa sant xéewali yàlla la ca sant ga nag itte baax la ko yàlla tànne wa hadaahu ila siraat mustaqim defal ko defal defal ko hidaaya kon nga gis kon Ibrahima kon bokk na ci ambiya yi bokk ci musuleen waaye bokk ci ulul azmi muy juróom yonent yi gën ci yonent yi waaye ab santkat la woon yonent yàlla Nuux sun ba melal ko moom itam ci ne ab santkat la woon wax ne durriyata man xamal na ma nuux innahu kaana abdan shakura sun ba nee na nuux ab santkat la woon innahu kaana abdan shakura isra sun moom dellu wax ci suleymaan doomi daawud moom itam yónent la woon noox mee jàll léegi moom itam bokk na ci ulul azmi bokk ci mursalin bokk ci ulul suleymaan nag yonent la woon nabiyu la waaye bokk bokku nag ci ulul azmi waaye sunu doon nee bokk na ci ay waxam xaala hada min fadli rabbi liyabluwana liyabluwaniya askuru am akfur wa man shakara fa in ma yaskul nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karimun fa inna rabbi ganiyun karim eh, sunu doon neen eh, Suleymaan neewoon na lii lépp di ci ngëneel yàlla la rek lu ma defal ngir di ma natt ba xam damay santam damay weddi waaye ku sant ku ne day boppam rek la santal waaye ku weddi nag yàlla moom sama borom moom xëni yi la karim la ñàkkaa cant du ko wàññi dara ñi nga xam cant du ko jariñ dara ni ko noonu rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko bare woon la lu muy sant yàlla subhanahu wa taala moonu jàngaloon ñuy wax gannaaw julli farata gu nekk allahuma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusna ibadatik yaa suma yàlla nag ma dimbale ci ma di la tudd ak di la sant tey rafetal sama jàmm ci yow rawahu abu dawud wa nasaa'i yow sama yàlla may dimbali dimbali ci ma di la tudd ak di la fàtte ko di la tudd waaye di ma dimbali ci ma di la sant itam waaye di ma dimbali ci may rafetal sama jaam jëme ci yow as-sayyidatu Aïcha radiyallahu anha nettali na ne yonente bi sallallahu dafa daa taxaw guddi kaana yaqumu yaqumu layla wa yusalli lillahi rabbil alamin dana taxaw jul taxaw guddi di naafila di jaamu yàlla bàyyi tànkam di nawi ngir yàggu julli ak taxawaay yu yàgg soxna Aysa ne ma ne ko li ma tas na xaata yaa rasuulallah waxat xafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika fa radda alayha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qaa'ilan afala akuna abdan shakura muttafaqun alayh soxna Aysa nee na ma ne ko yaa rasuulallah ana lii la ci fekke coono bi nga daj lépp xanaa sa borom néewul la jégal naa sa bakkaar yu njëkk sa bakkaar yu mujj mooy ya nga defe yi nga defagut mu ne ko gannaaw yàllaa ma defal loolu lépp na xanaa kon war maa doon jàmm bu koy sant allahu akbar kon fa gisee moom gannaaw yàlla defal na ma xéwal gu toll ni jégal ma sama bakkaar yi ma defe yi ma defagut yëpp kon na maa def lii ngir war won ko ne sant naa la kon mooy cantu jëf dafa cant cant koo xam ne cantug jëf la cant nag am nay xeet al muslim yashkur kulla man kulla man qaddama ilayhi xayra ab julit ku ko defalu yiw war na laa sant te te ka koy defalu yiw mooy yàlla waaye kam ko jaar lii itam ku ko defal aw yiw la ku la defal njëkkit war nga ko sant bokk na ci xeeti cant muy shukrullaahi muy sant yàlla sant yàlla ci boppam ab julit dafay sant borom subhanahu wa taala ci xéewal yu bari yi nga xam ne xéewaleel na ko waaye waaye bañ a met bañ wedd nag benn benn ci xéewal yàlla yi ndax kenn du ko weddi lu may ko wedd rek ku wedd yàlla mooy mooy wedd xéewal yàlla wala yakfur bi ni'matillahi illa jaahid ma rasul ba ne fadkuruni adkurukum washkuru li wala takfurun sant euh, na ngeen ma fàttaliku ma fàttaliku leen waaye nangeen ma sant te bañ ma weddi borom subhaanahu wa taala del waxaat ne yaa ayyuha alladina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum washkuru lillahi in kuntum in kuntum bu doon yéen njigam yàlla na ngeen lekk ci li tey ci li ci li ci li tey ci leen yàlla wërsëgal mooy la tey mooy la dagan tabaax waaye su ngeen ko lekkee ba nag na ngeen yàlla nag ci xéewal gi mu leen xéewalal su fekkee moom rek ngeen di jaamu nag laa wax surtout baqara xéewal yàlla ci jaam bi laa tu'addu wala tuxsa ma ne su ko lim ma ne su ko takk bari na lool moo tax su ma ne in ta'uddu ni'matallahi laa tuxsuha su ngeen jéem a lim xéewal yàlla wala ko jéem a takk du ko man waaye dañ ci wane yenn rek dañ ci indi yenn rek ci xeeti xéewal yi yàlla xéewal ab jaam te bu benn bu ci nekk yaayoo cant ngu sax dàkk ba ci njëkk sun nee na qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun sun boom yàlla moo leen defal xéewaluk sos leen mooy amal leen bu amu amu woon yàlla leen amal loolu yaayoon a cant yàlla defal leen ab dégg te mënoon ngeen a tëx xéewlu dégg képp mëni su ko fay dafa leen bët yu ngeen di gise gis képp ñu la ko fayoon mënoo ko fay dafa leen ay xol yu ngeen di yu ngeen di yége yu ngeen di xale xalame di ca fase loolu mëni su ko fay mu ne waaye ñu néew nag yeen ñooy sant xol li ma leen defal lépp waaye ñu néew yi sant yéen qalilan ma tashkurun mooy lu néew ngeen di sant yàlla la leen defal lépp waaye teewul lu néew ngeen di sant yàlla sootul mulki su ma del waxaat ci sootul anfaal wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibaat ndax lan la'allakum tashkuruun yàlla moo leen dëgëral ci ndimbalam wa sëgal leen ci yu tey ngir lan ngir bëgg na ngeen sant ndax lee ngeen sant la àllakum tashkuruun del waxaat ci suuratul xasas wa min raxmatihi jacal lakum allayla wannahaara li taskunu fiihi wa li tabtaxu min fadlih wa laallakum tashkuruun ci yërmande yàlla bokk na ci yërmandeem defal gi mu leen defal guddi ngir ngeen di ca dallu defa leen bëccëg ngir ngeen di ci yëngatu ngir sàkk ngir sàkk wërsëgam lépp nag ngir ngeen sant rek allay la li tes ko no fii mooy guddi gi mooy ngir ngeen di ca dallu bëccëg li tax toxo min fadli yi ngir ngeen ngeen mu sàkku ji wërsëg mooy yëngatu ji waaye la alakum tashkuru mooy lépp bëgg ngeen bëgg na ngeen sant ma ndax noonu bi koy sant kon sant mi ngi mi ngi dëggoo mi ngi wéree ci reconnaître xéwal yàlla reconnaître gëm ne yàlla la defal xéwal nga di ko waxtaan it nag te di ko jëfandikoo ci topp yàlla subhanahu wa taala suñu doon nee na surtout doxa wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis léegi yàlla defal ci xéewal dee ko waxtaane yàlla ko defal na ma nangam yàlla defal na ma nangam waxtaane ka ci cant lañ koy limaale ndax yonent bi saa sa moo waxoon ne attaxaddusu bi ni'matillahi shukru wa ak kufru waxtaane xéewal yàlla cant la ñàkk ko waxtaane weddi la kon boo gisee Sëñ Tuubaa xes day lim suñ moom moo defal nangam moo defal nangam lu lu ne mu wax ko suñ defal na ma ko mooy da koy wax dafay jëfandikoo ndigal yàlla mooy waxtaane xéewali suñ ndax waxtaane googu cant la salaa suñ tekki na waman laa yaskuri ومن لا يشكر قليلا لا يشكر الكثيرا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ku du sant lu néew du sant lu bari waaye ku du sant nit doo sant yàlla Bayhaqi moo solo xadis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam del waxaat ba tey ne inna allaha la yarda an yakula al akalata fa yaxmadahu alayha aw yashraba shurbata fa yaxmadahu alayha nee yàlla dana gërëm ab jaam dana ko gërëm ci lan mooy lekk mu lekk ba noppi sant yàlla mbaa naan nga naan ba noppi sant yàlla lekk ba noppi ne alhamdulilahi rabbil alamin sun boom gërëm la ca loola maa nga naan ba noppi ne alhamdulilahi rabbil alamin sun boom gërëm la ca loola te lekk wala xéwal naan nga ma lu ko xéwalee nee yàlla dina gërëm ab jaamam kon ci ci kaw lekkum lekk sant ci yàlla mbaa naan gu naan sant ci yàlla te ngërëmul yàlla lu kawe kawe kawe la lu jafe la it muslim ak tirmidi ak ahmad ku ci ne eh, ñoo solo xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi del waxaat ba tey ne inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi yàlla su sañoon di gis jeexiiti xéewalam ci ab jaamam mooy nga di ko jëfandikoo waaye nga di ko sant ca loola Abu Dawud ak Tirmidhi yi ku ci ne indi na ko indi na xadis boobu Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu dadaa wax ne dadaa wax ci cant ne tadakkaru an niama fa inna dikraha shukru dee leen fàttaliku xéewalu yàlla ndax fàttaliku ga ak cant la di ko fàttali ko di ko tudd ndax fàttali ko kook tudd ko ak cant la waaye itam gërëm dogalub yàlla ba tey sant la la yàlla dogal ca nga gërëm ko su da da da da bindaale ñàkk mënoo am dara nga gërëm la yàlla dogal ci yow nangu ko loolu taxawaayu cant la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam newoon na ida maata waladul abdi xaala llaahu li malaikatihi xabattum walada abdi fa yaquluuna naam fa yaqulu xabattum thamarata afidatihi fa yaquluuna naam fa yaqulu maada qaala abdi fa yaquluuna xamidaka wastarjaa fa yaqulu llaahu ibnu li abdi baytan fi ljanna wa sammuuhu bayt alhamdi rawahu tirmidi wa ahmad yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na su fekkee ab jaam ab jaam doomam dafa faatu ab juri doomam dafa faatu sunu doon sunu doon day wax malaaka yi ni leen jël ngeen sama doom yi jaam ba ñu ne ko ah, waaw mu ne jël ngeen meññite xolam kon doom meññite xol la jël ngeen meññite xolam ñu ne ko ah, waaw mu ne lu sama jaam ba wax nag ñu ne ko day sant na la delloo boppam ci yow suñu borom ne tabaxal leen sama jàmm bi kër ca aljanna te ngeen tudde ko këruk cant këruk cant kon ku ne xam na ne tiis na suñu borom jël sa doom lu tiis la waaye ba nga ca sant yàlla suñu borom tabaxal la àjjana ci kër ci àjjana ngir ak cant googu nga sant yàlla ci ñax gi nga ñàkk sa doom jooju ba te yonent bi saa suñ jàngal nu ñuy sujjóot sujjóotu cant ci saa bu ñu xéewal bettee saa bu nu mbégte mbégte bette saa bu am mbégte mu la bett na nga sujjóot ngir sant ci yàlla muy sajadatu shukru wala boog nattu bu am tiis bu am sun ba musal la ca nga sujjóot ngir sant ko yàlla ci ñu bombardé woon fii rek ñëpp faatuñ yow nga mucc da ngaa war a sujjóot ngir sant yàlla wala nga nekkoon ci état si état daanu nga mucc faatuwoo nga doon sant yàlla kon bu la yàlla defalee xéewal gu bette na sujjóot sant yàlla waaye bu musiba amee nga muccee nanga nga sujjoot sante ko yàlla loolu yoon saa sa mënu ko jàngal ba dee sant ñaari waajur it ndigale yàlla azza wa jalla yàlla moo digle ñuy sant sunu ñaari waajur sant leen waaye rafetal jëme ci ñoom ñaar moo tax ma ne anishkur lii wali walidayka ilayya almasir nanga ma sant man yàlla waaye nanga sant sa ñaari waajur te xam ne yéen ñëpp ay del sa wat ci sama kanam sootu kon ab julit dafay dafay cant dafay dafay jëme ak cant ci ñaari waajuram nam leen sante na mooy topp leen topp leen rafetal rafetal aw toppinam ci ñoom waaye rafetal jëfi ni njëkkam ci ñoom di leen jëfi njëkk mooy di leen ji tiraanga lu sax ji tiraanga ba fay tiraangal ndax ñoom ñoo la yëkkatal ndax ñoo la jur ci farata ak sunna di la toppatoo di la di la di la dundal di la waddu di toppatoo ba nga ne léng kon boo leen dee jëfe njëkk kon fay njëkk la waaye du waaye waaye du lebal njëkk rafetal jëme ci ñoom ñaar te xër nag ci sàkku seen gërëm ñoom ñaar ak moytu moytu loo man ci bañ leen a merloo kon noonu la sant ñaari waajur sant nit ab julit dafay jéem a fay njëkk reconnaître nit ñi seen xaq maanaam reconnaître ak nit ñi ci yow di leen sant ci liñ lay defal ci yow yiw na nit ku la defal lu baax nga sant ko lam defal jàppal ni ci yàlla bàyyi ko waaye ci moom la ko jaarale nga war koo sant moom mi yàlla jaarale xéwal gi ci moom boo sant yàlla ba noppi nga sant ko moom it ndax yonent bi saa sa newoon na laa yaskurullaaha ma laa yaskuru naas ku sant nit ñi doo sant boo sant yàlla yàlla du nangu wax naa ko ci gannaaw yàlla du la jox xéewal mais amee waaye xéewal gu mu la defal ci nit la koy jaarle day bëgg na kam jaarle xéewal gi ci moom nga jaarle cant gi ci moom waaye soo ne soxeet bàyyi tëb ko fa sant yàlla yàlla nangu sax cant Tirmisi ak Abu Daawud ko ci ne soloon xadis boobu yonent bi sallallahu itam dellu waxaat ne in ashkara annaasu lillahi azza wa jalla ashkarahum linnaas saa bu jaam bi sante yàlla yàlla sant loo ko nit ñi maanaam yàlla xéetal nit ñi ci ñu di la sant boo sante yàlla yàlla xéetal nit ñi ci ci ñu di la sant yooyu ah, ahmad moo solo xadis boobu ki ëpp àq ci nit ñi nag ci nga jëmale cant ci moom may sa ustaas mooy ki la jàngal mooy ki ëpp xàq ci nga war koo sant gannaaw yàlla bu yàlla jàll bi noppi ki ëpp xàq ci nga sant ko mooy ki def ci yoo xam-xam mooy ki la jàngal ndax lim la defal ci ngëneel ci loo xam loo ko sa bopp moo tax shaayir ba ndax xam-xam xéewal la ngëneel la shaayir boo xoon ne xum lil muallimi wa fihi tabjila kaadal muallimu ay yakuna rasula neen del jug saabu sa jàngalekat ki lay jàng saa bu ne tëll na nga ne ñokkee jug taxaw ngir màggal ko ak matal matal matal matal sa kóllëre ci moom ne ndax ab jàngalekat daanaka rek ab yonent la daanaka yonent ndax la bi saa sa jàng indi lépp moo la ko jàngal moo ko xamal moo jot dafa mel ni dafa mel daanaka ab yonent la ba te yonent bi salaa son di soññu ci ñuy yëkkate baatu cant ci képp ku nu jëfal njëkk ne ko jasaakallaahu xayran yàlla na yàlla fay yiw wala jërëjëf jërëjëf lépp ak cant la mooy dal kee defal njëkk bu ne càll rek waaye nag ko wax baat boo xam ne dafay tegtal ne sànn ko ci li mooy jërëjëf yàlla na la yàlla fay yiw yentu saa sam man suniha ilayhi ma'rufun fa xalli fa'ili jazakallahu xayran faqad ablaxa fi sana nee na képp defal njëkk wax ko ko defal njëkk ne ko yàlla na yàlla fay yiw nee na matal na aw tagg ci moom jotal na tagg ci moom tagg féete ko kaw raaxu tirmidi wa nasaayi cant nag làmboo ngëneel lu màgg mag màgg màgg saa bu jàmbi takkaayoo jikkoy cant sant boroomam dana làmboo ci loola ndollan lu bàyyi ko ci xéwlee subhaanahu wa fii ci àdduna ak texe ci ay ngërëmam ci tabbi aljannaam kon xi dollik dalu dolli ga yàlla dolli ci ci sababu si cant kon dalay dolli fi ci àdduna xéewalug àdduna ci wërsëg alal bis penc mu tàbbal la aljanna ca loolu kon ni muy ñaari xéewal xéewalu tey ak xéewalug ëllëg ak mucc ci mbugal mi yàlla ëllëg alaxira mooy la in shakatum la asidannakum dafa làmboo loolu wax lépp su ngeen rek yàlla dolli leen dolli ga mooy mu desal alal ja barkeel ko fii ci àdduna ëllëg mu musal ci sawar tàbbal la aljanna borom subhaanahu wa taala itam del waxaat ne li feeg yéene ngi sant yàlla du leen bëggal maa yafalullah bi azabikum bi azabikum mu in shakartum wa amruka la shakirin alima yàlla du jëflanteeg yéen mukk ci mbugalam li feeg yéen a ngi sant tey gëm yàlla ndax yàlla shaakir la alim la mooy ku santkat la ko xam la itam imam Xasan dafa waxoon ne kullama shakarta ni'matan kullama shakarta ni'matan tajaddada laka bi shukr azam minha saa boo sante yàlla rek yàlla indi geneen xéewal gu bees goo amutoon ba lu jiitu ngay sant man a xéewal gu ëpp ga tax ngay sant ñàkk sant ak jeex itam ab julit wërta bokk ñi nga xam ne dañ leen defal njëkk te duñ sant yàlla subhanahu wa ci ay xéewalam du ñu sant nit ñi it ci jaarle gi yàlla jàll xéewal ga ci ñoom ñooñu la ñuy tuddee aljaahiduun aljaahiduun mooy weddikat yi ñuy weddi nga xam dañuy dañuy dañuy fakk wala dañuy weddi njëkk wala xéewalu yàlla ci ñoom njëkk doomu aadama ci ñoom wala xéewalu yàlla ci ñoom alxuraan itam ŋañ ŋaññi leen wa man shakara fa innamaa yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbii ganiyyun karim ko sant day bafun dong la santal ndax yàlla cant jariñu ko dara ku weddit bafun képp la weddal ndax yàlla ndax ndax weddi cant wàññiwut yàlla dara waaye lor ja ci yow lay delluwaat imaam ali yi karamalaaw ci war a day anhu waxoon na ne kufru ni'mati lu'um weddi xéewal yaraanga la dëgg dëgg yaraanga mooy weddi xéewal mooy yàlla defal xéewal te santoo ak li wax la eh, sunu borom ne la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum la ca teg inna azaabi la shadiid su ngeen weddee bañ maa sant sama mbugal lu metti la kon ndeke yàlla dana mbugale kon ci ñàkk ko sant waaye sunu borom def aljanna mu nekk ak pay ngir santkat yi aljanna yàlla ko def ngir mu nekk ak pay ci santkat yi eh, waaye def itam sawara muy mbugal ngir weddikat yi nga xam ne dañuy weddi xéwlu yàlla duñ ko sant nit dafay dolli force ràbboo gi ràbboo ci seen diggante ñoom nit ñi ndax ki leen defal xew nga sant ko faw seen xol da ngeen bëggante waaye ci xam itam imkaaniyaat eh, lenn ci ñoom nga xam ne war ma muy muy respect dafay tasaaru ci seen biir waaye itam nangu nangu na delloo njukkal itam ak ak ak ak ak sécurité ak istiqraar muy ak dal dafay am ci seen biir sant nit dana seetal xol ci kiñaan ndax ki ngay sant ku ne xam na ni ëmb lu ko kiñaan ki lay defal xéewal di la ko jox ëmb lu la kiñaan boo ko santee ëmb lu ko kiñaan yooyu it kon amraadul xasad dafa bokk ci li nga xam ne sant nit da koy seetal ci ab xol di ci dindi itam njësal di ci itam xëccoo ak ëpp na ci yi nga xam ne yépp ay jikko yàqu la tamaman waaye sànni jiitam itam xàq la ci seen seen seeni àq ci yow maanaam da nga leen ameel xàqi cant ci lépp luñ la defal lu yàlla jaarle ñoom ndax sant mooy taajul ixtiraam mooy mooy mooy ndëppal respe saa bu respect nag sànkoo rek dafay daal di dog àlaqaat yi dafay dog relation yi waaye itam kiñaan di tasaaru ci suñu biir ak bañanteeg yu mel noonu loolu ñàkk respect moo ñàkk respect loolu lay indi su ko defee nag kon nga xam ne kon cant kon lu yaatoo yaatu la incha allah benn yoon dañ ci desaat ci beneen émission kon ñu leen tàggu fii leen jox eh, dëgg daje benn ajuma ci waxtu yi seen ci seen émission xam sa diine ñun yaa ñaanal sunu boobu mu defal nu li gën ci yoon dëppale li nu gënal ñaan suma defal nu ndimbal ak tawfiq ak xéewal xéer nu ci njub saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وجهت abdan qadiman lahu bilfardi wassunnani hamdi wa shukri li baaxin la sharika lahu ala mujawarati almunji min alfitani hadani allahu bilmaahi wa ashkuruhu min gayri shirkin wala xishin wala katani alhamdulillahi rabbil alamin ala muhammadin man bi xayril bishri akramani usni ala allahi wal ikrama basharani wa kaana lillahu bitabshiri wal amani